65 Abba lan la. dama eh, dama eh, dama ni lan lan nga may doyee maa ngi ci télé bi en direct lan la aba léegi Pape la. Eh, allo léegi dama lay laaj. Abba Abba no stress est-ce que bëgg nga maa bàyyi. déglu ma laaj ba pare déglu rek bu ko <laughs> jël sama temps da ngaa dër balaa nga may laaj li nga ma bëgg laaj mën naa fee tuuri ndox ñëwaat. <laughs> Pape animateur nga. loolu yàgg na. métier bii nga ci sama njaatige. yooyu yëpp kenn laaju la ko. <laughs> may xalaat may xalaat keroog yëmal xiyam man bu ma yàlla woowee laaj ma abaa loo doon def ci àdduna lan laa koy tontu mais damaa xalaat sama rek ma xalaat la rek yow ma commencé di reetaan xalaat nañ tontu man garaaw mais yow sa tontu ak. <laughs> mais xam nga lu garaaw abaa xam nga yaa may jiitu. <laughs> boo ma jiitoo rek lekkoog yàlla bu ma ñëwee sama yoon leer yaa may njëkk a def <laughs> waaye yow mag muy animé ci télé bi Aba no stress mii xam nga xale yi neexu ñoo bëgg neexu ñoo faral neexu ñoo àndal ma nga dër ba yàqu leel bay camouflé di ko wat di ko diw ma nga manqué lakkal na nit ñi xeetu lakkal goo xamante ni kenn musul gis lii waaw man maa ngi ci télé bi jàpp sama jàmbur di animé sama animé di def sama émission too ñu ma kenn indiw ma kenn problème Aba no stress war maa naan ma pap boo deewee yàlla looy wax yàlla waaye man ma ne ko comme yaa may jiitu boo demee Thialé lijjantil ma problème bi ndax xam naa ni yaa may njëkk a dee. soo ñëwee romb. kii waa léegi bu ko defee man bu ma ñëwee dinaa xam ni Aba defar na terrain bi <laughs> comme ci àddina jiitu naa la ci fi rajo gi fi télé yow nag bàyyi naa la ak àllaaxira jiitu ma fa yàlla. <laughs> waa nag lii nag neexatul bokk jullit yi. mbokku jullit maa ngi leen di ñaan. yii neexatul. <laughs> yii neexatul mais ma 5000 kay. <laughs> <laughs> ah ati leen ma Aba waa léegi man Aba barki dem ci télé bi la toog samedi soir nekk ak ay manquant ay nit yoo xamante ni ke xamul fan la ñu jógee bàyyi mi nga xam ne bàyyi yére ba mu sol Aba doo ko sol fan yële ma bëgg yére bi ba bàyyi solo yére bi laa gedd yére bi. ñu def ñu def samedi soir tout est permis ci télévision Futurs Médias waaw man woowu ma ko di ko wax idée man ma ne ci télé bii mayee million abaa war ma onaam baay alaaji baay te dafa dër alaaji baay damay laajte léegi yow boo deewee waa léegi abaa comme yaa njëkk a tee yow boo demee rek le problème léegi yàlla abaa moo tooñ boppam non moom ah, mais lu tax mu may woo di ma waaye léegi télé bi kan maa rek dafa mel ni ngeen ko waxtaanee parce que réponse bi moo ci Serigne Touba yow kii préparé wu dara maa moom a yam il faut ñu enquêter la may artiste on ne prépare rien. il faut ñu enquêter émission bu ñu dañ ko am alors Baye léegi damaa xam ne yow animateur nga nee na man lay jàmb jàmbee noonu <laughs> yow animateur bu mag nga te vraiment yaay suñu njaatige xam nga yii ay tooñ la xale yi ñu ngi tooñ. gis nga mag gis nga bu ngeen bàyyi duñu tooñ ñun mag ñi. moo tax yéen xale yi du ngeen xamul leen di dal abaa ngi mën nga leel ma nga dë mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi noonu rek xam nga tooñ ay mag baaxul man nii mag la ma maa ngi ci tele bii di animé su ma paree léegi nii bu 11h30 jotee. Amina Amina Poté rek doy na ma soxla su <laughs> Amina Poté rek doy na ma léegi Aba boo ci bëggee dooleeku allo Baye boo deewee xam nga nag comme yaa may njëkk dee boo demee rek le ko rek le yaa may njëkk a dee. non yow Aba mi dama ko bëgg a xàmp. su ma ñëwee sama yoon leer. Ah! waa léegi. waa léegi yéen atte leen naa xale bi allo Baye boo deewee ooy léegi ñun teel a jël pause ma ma dem ma dem bureau directeur kii ana deete deete deete deete directeur technique. tegal musique ah Dete est-ce que mën nga ñëw ñu ne leen yow Dete ñu pause pause tuuti ah El Hadj Malick mosoo gis lii El Hadj Malick ba nga nekkoon amul yii fii nag yu ne ngi fi fii mooy TFM moo tax duñ ñu baal dara parce que ay nit yu libre rek yu soo dajale ñu gën a libre ci at ne leen ñëw leen ngeen liggéeyal ma télé bi léegi li ma naqadi mooy léegi ñu bind ci internet bi ne Abba souhaite la mort de Pape mhm. Cheikh xam nga danoo garaaw. yaa ngi leen di jot titre bi dama leen di jot <laughs> titre Abba appelle en direct à la télé pour souhaiter la mort xam nga yii dañuy tooñ. <laughs> waaye yow yow yow yow yow Camara Camara Jibi Anta booy comme kàll yaa may jiitu ma lay ñaan rek la dolli bés boo demee ci yàlla ne ko sama mag ji dina ñëw xam naa ca njëlbeen yàlla moom ne ko njëlbeen rek na ma fi bàyyi ba ci kanam. boo ko defee mais accompagner xale yi xale bu dem xale bu dem rek beneen xale ñëw maa bëgg accompagner xale yi ba ci kanam <coughs> vraiment euh, euh, mais mais retrouver Abba retrouver Abba ci euh,